waxtaan wi nga xam ne nii seen président national Xaadim Sylla nekk sama rak nga xam ne nii xëy na prévoir ma woon pour fekk ko waaye visite marché bi moo ñu ci moo ñu fi indi ma ànd ak eh, sunu mag sunu nijaay monsieur le maire Abdoulahat Ka en même temps il est le premier vice-président de la chambre de commerce de Diourbel ma xam ne ku xam ma xamul leen kon ànd ak tamit waa chambre de commerce bu kaw Kaolack ñépp xam lien économique bi nga xam ne nii moo lié Touba ak Kaolack yaakaar naa commerçant boo gis fii ci Touba moom wala waajuram wala nga gis ko Kaolack moom walla waajuram am na lien ci jaar fii wala jaar fee wala activité économique ba mu doon def ci jamono jo boobu ci Touba ak Kaolack rek la woon kon développement Touba Kaolack daf ci am wàll bu wér te loolu ñi fekkee ay 70 74 xam nañ li may wax ah su si yow waaw kay kon su ma ñëwee ànd ak ñoom muy Alioune Diouf secrétaire élu muy Pape bi nga xam ne mooy section transport ak Djibi Diop bi nga xam ne lii moo section agricole ak Omar Thiam bi nga xam ne nii membre correspondant ba pare représenté leen foofu assise loolu rek day wone lan mooy configuration chambre de commerce danaa ci gën a ñëw parce que yéen a ñu wax solution solution mais tant que yéen seen bopp jógu leen gëstu lan mooy capacité chambre de commerce lan mooy chambre de commerce ngeen préparé ëllëg. pour mu war a nekk locomotive bi nga xam ne nii moo leen di jàppale ba yii ngeen di kaas ngeen man ko am da ngeen ndax ñun wax dëgg yàlla yaakaaruma woon ne bañ may mille élire 2010 2021 dana ma fekk chambre de commerce ndax lañ bindoon ci texte de loi bi mooy ñaari yoon nga war am mandat 5 ans kon maa gënoon a xam ne 2021 waruma ko fekk te ba tey tamit. su ma sañoon suñ doon renouveler te lépp jaar ci yoon du ma fa fekk waaye li si Cissé Lo doon wax rek ne mën naa bàyyi député mën naa bàyyi politique waaye mënuma bàyyi commerce yaakaar naa suñu ablaat tam nit ñi mën naa bàyyi maire waaye kenn mënu ko bàyyi loo chambre de commerce mënu ko bàyyi du ko bàyyi doo mënu ko bàyyi kon ñun ñii mën nañ bàyyi ba ñu nekkati président jox suñuy rakk jox ñeneen waaye mënuñ génn suñu loxo ci chambre nu nekk ndax kon loolu moom mooy nekkatoo commerçant nekki nga fonctionnaire wala dara te loolu mooy ndax suñ waajur sax bu doon dund bu doon dund ba léegi mu ngi ci tàmbali kon nag man dama leen di conseiller li ngeen dégg ma di ko wax naan leen renouveler yaakaar naa yéen yéen a ko waroon a porter man suñu renouveler mën naa am dutuma nekkati président ndax man naa am waa Kaolack duñ ma wóolu wala dañ ma duñ ma def nangam wala nangam kon su may wax ci renouvellement des instances. assise wala yu mel noonu yéen a ko war a porter parce que dañoo war a renouveler def élection ñu changé loolu am te loolu yéen a ngi koy bàyyi du ma dégg kenn wax te fàttaliku doon histoire du Sénégal soo demee port de Kaolack chambre de commerce ko tabax port de Dakar chambre de commerce moo ko tabax marché de Kaolack chambre de commerce moo ko tabax xam nga Touba nag soo ko xoolee ni mu configuré Ocass lu ndaw la dafa daf ko daf ko ëmb. ndax man sax ñi ngi wax naan état bi dana ko tabaxaat waaye boobu ba léegi maa ngi xalaat ak sama xel mu gàtt waaye ban solution laay gis day ñëw jënd ñu fi nekk kër yi tabax ko wala da leen di exproprier wala da leen di organiser ñu tabax ko xam nga nit tamit yomb na rek nga ne ne nañ defaraat defaraat waaye man li ma bi gis am mbett lañ mën a defaraat waaye mark kër yi ñu war a defaraat yombul kon nag ubbi sa bët sooy conseil état ngeen toog xool li ngeen di wax ne nañ leen koy defal nan la ko nit di defee am na solo kon nag loolu waaye nag yàlla moom lu mayul doomu aadama amul lu mayul in istatantum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bi sultaanin sultaan mooy réflexion ak xam-xam mooy yàlla nee na su ngeen neexee ngeen découvrir asamaan ak suuf lu mën a nekk la waaye nag lu ñuy discuter la ba waxtaane ko ak riverains yi ak maire bi ak nangam ngeen ñëw ak seen i proposition yaakaar naa loolu bu ngeen loolee Abdoulaye nii su ma ko woowoon mën naa am na ne aw ma seen jot waaye dafa bàyyi li muy def lépp 11h ba léegi mu di ma xaar ndax 10h demi laa ko waxoon ma am ay kilifa yu ma waroon na àndal ñoom tamit mu 11h ba léegi mu ñëw toog fii kon man yaakaar naa am na ci yéen président de la république mi fi yebal tamit ndamam la suturaam la ah bëgg-bëggam la pour que marché Sénégal organisé. waaye am naa quatre-vingts milliards am naa cent milliards taxaw taxawul ñu tabax marché man ba ma dalee dégg ci Abdou Diouf ba léegi ñu di ko wax tabaxul pour ñuy marché kon nag nañ seet fan la problème bi nekk waaw ah fii nag ñëw ci Aziz dama ci am mbégte loolu ndax man dama leen a naw bu baax te féete day euh, nu koy waxate ragal féete day bañ a day xañe wërsëg man dama féete ak yéen ngeen xam ma ngeen ñàkk nga xam parce que lu tax mooy salle bi bu ñu doon séddoo ñu fi ëpp mbokk kenn ëpp ma fi mbokk ci côté bépp nag ci côté mbokk daara ci côté mbokk dret ci côté mbokk euh, commerçant jeex na kon su ma gisee ñoo xam ne nii gis naa ne seen yëngu-yëngu mooy ñoom ñi ngi subir loolu mooy ay activité lañ yor mooy danga yor euh, magasin da ngay importer te xam ne lii bu taxawee nga yëg ko nga di ciy sonn daf may wóotalee ki nga xam ne day coow ci turu commerçant te boo ne ko ana sa magasin wala ana sa boutique du la ko kon kooku lu métti métti damay fekk da xam ne nii ma nga ci nekk nga xam ne nii bu méttee boo ko dombatee mu métti la muy wax mu mën ko déglu ak mu mën a mel kon nag man jàpp leen ne ànd naa ak yéen fu yéen ma woo ci waxtaan ci loo xam ne nii man na suqale liggéey bi ma def ko ndax su ma nee du ma defar luy defar commerce kon yéenewu ma samay doom euh, jàmm ndax su ma sañoon ay commerçant rek la ñuy doon te commerçant moom industriel bi sax commerçant waaw ndax kenn ku ne war nga am fierté ne commerçant la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla daataa la yónni commerce la ko def loo sàmm sax commerce la da ko commerce loo ba pare ci la jógee ba ah, wax yu bi ñëw ah boole ko Khadija kon loolu man je suis fier de le dire que commerçant laa ndongol daara laa Touba laa dëkk Kaolack laa juddoo Saloum Saloum laa de naissance mais Touba laa dëkk loolu tamit nag ba ma ko di ko su doon bëgg fu may bokk rek ci chambre de commerce chambre de commerce Dakar laay inscrire ba ñuy voté 2010 jàpp leen ne neuf sociétés yu voté am naa ko te Kaolack amoo a société bu voté dañ maa fëkk Alioune Diouf mii moo fëkk sama carte daal wutal ma fa registre commerce dugal ma ci seen liste ah ba jot jotee ma dugg ci rek waaye man ba may jóg chambre de commerce kaw la ko jóg loowu ma ndax ba ñuy defar liste ba ba da ci kii sax taxawuma fa di ko wax dañoo dem ba mu sës ba ñoom seen biir ñu taw ba amuñu candidat xëccoo seen biir yàlla may leen ñu am xel ak xalaat ne nañ jëli sëriñ bu loolu ma ci dugal waaye du combat bu ma porté woon su ngeen gisee ma porté combat chambre de commerce bi fii damaa gis ne tey yéen ñépp xam ngeen ni Aziz lu mu rëy rëy Unacois lu mu rëy rëy bu taxawoon Dubaay ne Aziz laa wala Unacois dañ naan ko lan la waaye bu taxawoon Dubaay ne chambre de commerce laa wala délégation chambre de commerce roi roi ba sax mën na leen recevoir ndax yéen ñiy dem Dubaay xam ngeen chambre de commerce Dubaay li mu représenté ñiy dem Italie Amérique France xam nañ chambre de commerce li mu waaye loolu état moo ko créé jox ko secteur privé yéen a ko mën a fay daal keneen mënu leen ko fay daal seen bopp su ngeen ko ñàkkalee fayda mu ñàkk fay su ngeen ko faydaalee mu ñàkk mu am fayda état mi ngi fay daal gouvernement am mi ngi fay daal ay institution ñun suñ institution publique bi ñu ëmb nga xam ne nii teewul war nañ mën a nekk bokk ci assis bokk ci inaakuwaa bokk lépp bokk ay gis-gis waaye am cadre boo xam ne buñ fa dajee waxtaanee fa mm. loolu mooy chambre de commerce kon nag ñaax ngeen gëstu ko seen yëf la kenn moomu ko fi lañ koy fekk ba muy créé wu juddooguñ bu kaw lax 1911 la créé wu 11 waaw sëñ Tuubaa du 28 lañ jéegi 27 kaw lax bu 11 1911 la créé wu bu Saint-Louis 1870 te fi lañ koy bàyyi yaakaar naa fii 1000 ans bu ñu fi yàlla bàyyee tamit fi lañ ko fi bàyyi du fi jóg ah kon danaa leen wax ne li ma bëgg a wax lépp sax xam naa ne day am yeneen yoon ngeen wooma ci ni ngeen tudde seen bopp ay assise d'accord naa ay assise ñu def ko fii mën naa leen ci jàppale ah ci local ci mag ab laat yu toog mu xalaat ndax commerce moom ku koy waxtaanee waxtaanee ko Touba da nga am ndax tamit li li nekk commerçant ci Sénégal te am intérêt tubaa walla ñoom ñu am ko ci intérêt bari na te mooy deuxième économie moom mii xam na ne tous les jours ci la ñuy waxtaan dama ne ko benn jour ñu ànd maag moom du man ñeenti wax di wër fële ma ne ko ñaar est-ce que soo wuttuwul cinquante wala cent conteneur danañ jógee Dakar ñëw Touba par jour mu ñëwee ci conteneur wala mu ñëwee ci bagage e man naa am ci camion bi muy dugg trois cent mille quatre cent mille lay mais ñëpp xam nañ ne buñ defaloon raay raay bi sax baax na ay train teg ko ci cinquante bago conteneur bi dañu yóbbu fii te doo ci fay cent mille franc cent mille franc da ko fay ci port sec lañ doon wax boobu ma ne ko ko wax ne ko imaginaire xalaat la port sec boo xam ne nekk entre autoroute ak raay ndax tant que logistique réglé wuñ ko logistique dafa am solo commerce su logistique normalul commerce bi du normal ba mukk waaw ndax benn conteneur ndox transport bi mën naa ëpp ndox benn conteneur mat la transport bi mën naa ëpp mat la kon xalaat ngeen xalaat ci yéen li ngeen tuddee union des commerçants et industriels nan ngeen mën a créer centre logistique man de bu ngeen ci amee ay waxtaan ak lu mën di doon ak maire bi yaakaar naa lu mën a yomb ba nga xam ne nii da ngeen mën a am marché de groupe marché d'intérêt national fii Touba moo nekk ci digg Sénégal jóge fi dem Tamba jafewul autoroute bi parce que ilaa Touba la wala ilaa fépp la léegi man may dem kaw la fa moom laay jël ba Bambey ma wàcc jël ñii dem Kaffrine fii la ñuy jël jaar bi ñii dem Fouta fii lañuy jaar kon ngeen xalaat ci côté yooyu xëy na affaire marché bi la ma fay wax fële wax naa ko mën a jël ma ci dellu si di leen wax ne d'accord naa toujours li ma leen wax rek mën naa ko bañ tekk ndax ñu daal la man bi ma njëkkee ak imagination ne centre commercial mën naa nekk étage mais dañ ne ma da nga mënta ne mais deux mille quatre-vingt-dix-huit laata jëlee samay économie dañ jënd benn terrain ci biir Sandaga tabax ko centre commercial ba ma koy tabax jafe na waaye lu bon bon yéen yéen a ngi fa teg seen bët la fa nekk di ay boutique ay nangam mën na trois cent la fa nekk di xëy di dugg di liggéey dafa nekk que man na 1500. fii tamit bi ma gisee ñëw xool centre commercial yi li fi nekk kenn xamul na la toll te ay si yéen rek ko tax yéen a ko moom kon nag man je pense que opérateur économique yi def nañ li war a def ne leen état bi gën a jàppale ci encadrement ndax li ñuy wax baadoola mënut a yar moroom ci encadrement loolu rek lañ soxla du xaalis ndax ñun ñoo war a jox état xaalis ñun ñoo war a fay. te yaakaar naa kenn ku ne mënoo yor place boo xam ne nii la ca nekk place bi lépp matul 2 millions lan nga ko tabaxee matul 2 millions nga te am fa 30 millions te sécurisation bi du sa préoccupation waaye mënoo ko ndax kay lal ci kaw courant ba koy defar wala lu mën dina nekkul ci sa autorité ci autorité état bi la nekk. maire yi tamit comme niñ ko waxee seen responsable waaye maire démembrement de l' état yaakaar naa lu état bëgg. cotiser mais di jox ko mooy naneñ ko def man xam naa yéeni Abdoulaye Ka ci Touba xam naa bu sañoon tey Touba mooy dàq Dakar te ñun ñëpp sax wala mooy dàq sax Paris mën nañ ko wax comme ni sañoon doon nga wax l'an 2000 Dakar sera comme Paris to mel na comme déen waaye mel na ko ci ay oto de ak déedéet mel na ko de Touba bi dàqu ñu dund ñoo leen dàq oto yu ñuy dawal ñoo leen dàq kër ñoo leen dàq lu waaye kenn ku ne xam nga ne am nga say yoon taw waaye la ngay sol sa garde-robe amu ko oto ba ngay dawal dawu ko boo tegee taabal amu kon organisation rek la ñu ko te ah, li nga xam ne nii ah moom lañ war a taxaw mooy li ngeen wax rek lu ñoŋal seen commerce lu ko yokk te gis nga port sec bu fi gis nga teg ci industrie day yomb parce que man su ma sañoon déplacer sama industrie buy def naa nga ni indi ko Touba wala mooy bu ko kaw mais su ma xoolee matière première bi may déplacer delloowaat ko dama naan non dafa cher mënu ma ko def Touba naa ko mënu ma ko def Touba naa ko def Dakar waaye bu fekkoon réglé nañ logistique bi logistique bi autoroute bi baax na mais autoroute bi rapidité lay yokk mais du wàññi coût de transport raay rek moo ko mën a te sëñ Mouhamadul Moustapha jox nañu example tabax jumaa ji moo tax raay bi ñëw fii tabax jumaa ji nag ah. mooy de coût bañ calculer coût bi nar a tabax jumaa ji ci ay xeer ci ay nangam mënuñ ko teg ci oto ñu mënuñ ko yenu tubaab bi étudier ko ne tabax raay moo ko mën a def dafa taxaw murid yi ñoo moom raay bi entre Diourbel ba ñoo ko moom waaw mën nañu wax waa ñoo ko moom privé c'est-à-dire si SNT bi ñu amee indépendance dañ ko nationaliser mais en réalité buñ ko toppoon boobu transport boobu c'est un transport privé pour les mourides kon daal maa ngi yemale samay kàddu foofu di leen wax ne man je suis vraiment motivé ànd ak yéen ci fu ngeen nekk ci Sénégal ndax ñii ma bokkal yépp ñoo bokk yépp pour que ngeen xeex nan ngeen mën a defaraate activité bi état bi jàppale leen état nag li muy man ndegam yàlla mooy wax nañ inna laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim état loolu rek la mën a wax loolu rek la mën a wax il faut que ñun ñu soppiku pour état mën ñu dimbali man mën naa taxaw fii ne état bi li normal li normal waaye li ma gëm su ma nekkoon place Macky Sall tamit tamit décidé ne damay indi xaalis tey man damaa taw de xalaat su ma newoon maa ngi tabaxaat fii ban xalaat laay te teg naa programme yëpp gis ma <laughs> moo ma jaaxal daal jërë ngeen jëf maa ngi leen di yàlla na